wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu lonqat wajaalhu shaakiran wa zakiran abad wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen bal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalante ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci sunu jataay yi weesu yépp ci téerab sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa'il xaaj te lépp di jàngale ay teggiin waaye lépp di jàngale worma waaye lépp di jàngale euh, jëflante boo xam ne euh, moom la nit ñi war a bàyyi xel di ko jëflante ci seen biir mu mel ni bind bi ñu mujj a foofu mi ngi tolloo ak bayit yi nga xam ne sëriñ bi ma ngi koy wax naan am na ku ñu masa wax ne ko kan moo yar mu ne man dey damay xool ci ñi nga xam ne dañoo réer jëf ja nga xam ne dañ koy jëf te ak réer rekk tax may xool jëf joojo di ko moytandiku ba moytu caa tàbbi waaye may xool ñi nga xam ne dañuy jëf jëf ju rafet ju dëppoo ak xam-xam ju dëppoo ak lislaam di jëf joo xam ne xel mu rafet nungu na ko su ko defee may roy ca jëf yooyee ngir toppandoo leen ca ba man caa am lu tol ni lan ca am wala lu ko jege ne na noonu la kooku ñu laajan ne ko kan moo la yar loolu la wax kon loolu liñ ciy dégge mooy nit ki bu defaree jëmmam yar ko Euh, bu bëggee yar li nga xam ne moo di ak njabootam ci defar googu mu defar jëmmam rek njaboot gi mën nañ cee jaare euh, di ca roy ba lépp loo xam ne moo di ab yar waaye lépp loo xam ne moo di sutura waaye lépp loo xam ne moo di war ñu mën koo jële ci jëmmam jooje kon loolu bind bu ama am solo la ci foofu sëriñ bi ci la waxe ne foofu la téere bi yem mu mel ni kon bind bi nga xam ne moom la ñuy woyal tey rek ci téere bi la it ba tey waaye day mel ni day saraa bayit yi nga xam ne moom lañ doon tudd ci suñu bind bi weesu sëriñ bi di wax foofu ne yaan yi limu mu jublu ci wax jooju an naka naka yow in lam tajit ndeem amu acheykha sëriñ kazalika niki noonu fala aqalla amul lu gën a néew min an yakuna ci nga nekk ak xan di mbokk xaqan may dëgg-dëggi mbokk aw saaxiban walla nga dib àndaale euh, nee na su fekkee ne de yàlla dafa dogal sëriñ boobu nga xam ne moom la la junj ci ginnaaw yàlla dogalul nga tase ak sëriñ bu mel noonu nee na kon la gën a niiw ca la ngay sàkku kon di ko wut na doon mbokk moo xam ne mbokk mu dëggu la wala mu doon àndandoo boo xam ne àndandoo bu dëggu la te mbokk mu dëggu ak àndandoo bu dëggu fépp foo xam ne fa la la ab sëriñ war a taxawoo mën na la faa taxaw mu ne wal aqu mbokk alxaqu jadi dëgg-dëggi mbokk ci dëgg-dëgg huwa moom allazi mooy ka nga xam ne achaara junjoon na ilayhi jëm ca moom alxaa'ilu wax kat ba inna axaaka naka sa mbokk alxaqa mooy dëgg-dëggi mbokk al abyaata mu ne nga dellu ca bayit ya nga xam ne ca la doon euh, waxe euh, loole nga xam ne ci ginnaaw mi ngi ñu doon wax mbokk dëgg-dëgg naka la mu war a mel di la wax ne su fekkee ne mbokk euh, bu fekkee ne mbokk mi nga xam ne moom la sëriñ bi wax fii bu fekkee ne moom nga sàkku ba am ko ne mbokk moom mooy mbokku mi baax ndax mooy mbokk mi nga xam ne saa bu la jamono jàppee nga am ay jafe-jafe boo soo gis ko mu lay defal waaye di la jàppale bu baax a baax ne na mbokk mu mel noonu soo fekkee ne fexee nga wut nga sëriñ ba sonn te sëriñ bu mel nee mu la waxan ne nanga na fexe am mbokk mu mel noonu mbokk moo xam ne day lor boppam ngir jariñ la waaye mbokk moo xam ne su gisee ci yow ñaaw téef dana la ko nëbbal waaye mbokk moo xam ne su la jamono jàppee ba tasaare la ba xamatoo fooy teg sa tànk boo geesoo gis ko sawet ngir lan ngir mu lay dëfal waaye ngir mu jàppale la ngir nga génn ci jafe-jafe yi nga xam ne moom ngay dund ne na su fekkee ne kon amoo sëriñ bu mel nee mu la waxan ne na nga fexee ba am mbokk mu mel noonu mu ne wa anna haasihi naka lii ayyuhal muridu ya ayyuhal muriduuna yéen taalibe yi jumlatun mbooloo la minal adabi cay teggin kaafiyatan yay aji doy liman ñeel ka nga xam ne te amalaha settantal na ko caafiyatan muy aji saafara liman ñeel ka nga xam ne istaamalaha euh, jëfe na ko kon ne na yéen murid yi na ngeen xam ne li nga xam ne moom laa leen tuddal ci téere bi day mbooleem lu di ay teggiin euh, mbooloom teggiin la maanaam teggin yu bëree bëree bëri la yoo xam ne dana doy képp koo xam ne seetantal nga ko waaye dana doy képp koo xam ne da ngay xelaat di bàyyi xel li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ci biir téere bi waaye tudd na ci loo xam ne képp koo xam ne da ngaa am euh, jàngoroy teggiin soo ko takkoo ne na mën naa saafara sa jàngoro joojee kon ne na képp koo xam ne takkoo nga teggiin yi nga xam ne moom la lim ci téere bi seetantal ko ne lépp loo xam ne moom nga am ci aajo jëm ci ay teggiin ne na téere bi mën na laa saafara loole su fekkee ne jëfe nga li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ci téere bi te leeral ko bu baax a baax a baax ne na yestadillu dana ci tegtaloo bihaa ci téere bi allabibu aji xellu wala ci teggi ni allabibu aji xellu alaama ca la nga xam ne wara aha nekk na ca ginnaawam min furu'i hadal baabi ci banqaasi bii la bunt xataa yukammila ba mu mottali funuunal adabi fanni teggin ne na a boroom xel day su fekkee ne mi ngi yor am xelam te di ci xalam ne na bu boobaa su jàngee li nga xam ne moo nekk ci téere bi ci lay tegtaloo ba egg ci lépp loo xam ne bàngaasoo na ci ay teggin e, li nga xam ne moom la jàng fii rek mën na cee sukkandiku ngir mën caa egg li nga xam ne moom la jàng fii ci ay teggin su ci sukkandikoo lépp loo xam ne mooy teggiin euh, suñu borom subhanahu wa taala dana ko jàppale mu egg ca ngir ne li nga xam ne moom la sëriñ bi tudd fii leneen lu mu gis bu ko nattalee ak loola settantal ko ci am xelam waaye jàngat ko ci am xelam bu baax a baax ne na la nga xam ne mooy mbooleem fànni teggin dina ko dajale ba lépp loo xam ne moo di ay teggin dara duutu ko ci réer waaye nag loolu kan moo ko mën a am mooy ki nga xam ne xam na teggin yi nga xam ne moom la sëriñ bi digle ci téere bi te wax ko fi leeral ko bu baax a baax waaye it mu xam ko ba pare di ko seetantal waaye di jëfe am xelam ngir lan ngir lépp loo xam ne moom la gisati euh, muy nuru ay teggin mu jim koo nattale ak li nga xam ne moom la sëriñ bi tudd waaye lépp loo xam ne moom la gis muy nuru ñaawi teggiin mu nattale ko ak li sëriñ bi tudd ci téere bi moytandiku ko bu baax a baax a baax a baax mu ne wa na anna min tariqi taaddubi naka bokk na ci yoonu teggin wa sabili bi ak yoonu yar an tanzura ngay xool ilaa ma jëm ca la nga xam ne tastahsinuhu din ko rafetlu min gayrika ci kudut yow fa tafaluhu nga koy def wa ilaa ak jëm ca la nga xam ne tastaqbihu da nga ko ñaawlu fa tajtanibahu nga koy teet nena bokk na ci ay teggin ba tayit Euh, ngay euh, xool ngay xool ñi nga xam ne ñooy jëf képp koo xam ne jëf na ci jëf joo xam ne sam xel settantal na ko rafetlu ko te muy jëf joo xam ne dëppoo na ak lu lislaam gërëm dëppoo na ak njàngaleem yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo na ak njàngaleem mag ñi nena bu boobaa loole nga xam ne lu yell la lu dëppoo ak ay teggiin la nga fexey di jëfe nu mel noona waaye ne na ngay xool képp koo xam ne jëf gis nga ko mu jëf lu wuutee ak njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko mu jëf lu wuuteeg njàngaleem alquran gis nga ko mu jëf lu wuuteeg lislaam ne na loolee bu fekkee ne xool nga sam xel settantal ko mu ñaawlu ko ne na loolee na nga ko moytandiku ndax ni mu wuute ak njàngale moomu nga xam ne mooy njàngaleem lislaam kon ne na foofu ba tey nit ki mën na fee jaare euh, sàkku ay teggin mooy di xool li nga xam ne am xel mu rafet rafetlu na ko te mu dëppoo ak lislaam mu cay roy waaye di xool li nga xam ne lislaam ñaawlu na ko te dëppoowut ak xel mu rafet dëppoowut ay ay teggiin yu rafet gëpp dëppoowut ak ay teggiin yu nu gërëm su ko defee yooyu yëpp mu moytandiku ko kama xiila ni ko mu waxe isa ajabatka ndéem yéemuloo na la xisaalum ri in jikkooy as cem fa kunhu nekkal ni moom yakun kon nga nekk minka ci yow maa la nga xam ne yon jibu ka dana la yéem ne na boo gisee nit dey mu yor ay jikko yoo xam ne jikko yu sell la mu yor jikko yoo xam ne jikko yu lislaam gërëm la euh, nga yéem ko ca bu baax a baax nena nanga na nga ci moom rek mel ni moom ndax ne na su fekkee ne jiim nga ci moom jiima koppi ci moom jikko yi nga xam ne moom la yore nee na bu boobaa la nga xam ne moom nga doon yéem ci moom suñu borom subhaanahu wa taala mën na la koo defal kon ci roy gi nga xam ne moom nga koy roy ci jikko yu baax yooyu muy def roy gi nga koy roy ci lu baax li nga gis mu nekk ci di ko def nee na loolu soo koy def euh, suñu borom mën na laa jàppale ba nga mel ni moom kon bu la nit ki yéemee ci ay jikko yu rafet wala nit ki yéem la ci euh, ab yar wala nit ki yéem la ci lislaam ne na bul bul bul bul bul euh, sax ca ga mukk waaye fexeyal di ko roy ngir nga mën a am kem la nga xam ne moom la am moo xam ci ay teggin la jëm moo xam ci euh, sàmm gu muy sàmmoonte ak diineem la jëm moo xam ci leneen loo xam ne ca la mën di jëm mu ne fa lay saxalal maj di de tedd nga wal makrumaati ak teraanga xaajibun di aji yéer joo xam ne yax jubu ko dina la yiir haa ndeem dikke nga ko nee na li nga xam ne mooy tedd nga de ak teraanga ak euh, euh, barke ak li nga xam ne mooy dara ja ak lépp loo xam ne mooy lu baax de nee na amut kenn koo xam ne moom lañ koy wutal baaraas walla ñu wutal la ab limite wala ñuy wutal la kiiraay ne la lii moo la cay muur ba doo ci egg képp koo xam ne jëf nga lu tax nga war a am tedd nga wala nga jëf loo xam ne moo tax nga war a am teraanga ne na na nga xam ne teraanga joojee ngay séentu danga nga ci jot ndax amul lenn loo xam ne moo la cay teree jot lu dul jëf-jëf ju baax ju mel noona joo xam ne moo la cay yeggale kon su fekkee ne jëf nga jëf ju baax joo xam ne euh, mel na noonu loolu dalay yóbbe nga mën a egg ci tedd nga waaye dalay yóbbee nga mën a egg ci euh, li nga xam ne mooy ay daraja kon bul gis nit mukk mu amee ay jikko yu baax wala euh, gis nit mukk mu amee lenn ci xéwal ak àdduna Euh, nga ko cay ñee waaye fexeyal jiima def ni moom jëf euh, kem jëf ju baax ji nga xam ne moom lay jëf su ko defee loolee soo ko defee amul lenn loo xam ne moo mën a dox sa diggante ak nga am loola lu dul ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko tudduta kon soo jëfee nu mel ni na mu jëfe moom euh, suñu borom mën na laa jàppale ba nga am kem la nga xam ne moom la am mu ne waxiila waxeef na li baax di baadihim ñeel ñenn ci ñoom man addabaka ana kan moo yar fa xaala mu wax kuntu dama nekkoon anzuru di xool ilaa jahlil jaahiliina jëm ci réeruk aji réer ñi fa ajtani ba hu ma koy moytandiku waxoon nañ ci bëy di weesu moom lay saraam wax ne wax am na ku ñu waxoon ne ko kan moola yar mu ne man de damay xool ñi nga xam ne ñoo réer rek jëf ji nga xam ne moom lañuy ñuy def te mooy jëfi kuréer ma koy moytandiku bu baax a baax a baax may xool ñi nga xam ne ñooy jëf jëf joo xam ne dëppoo na ak euh, xam-xam euh, te dëppoo ak lislaam moo leen tey roy wallahu yàlla almuwafiqu mi nga xam ne mooy aji dëppale nit ki aw yiw li sawaabi akub akum njub wa ilayhi te ci moom almarjion mooy delluwaay ba wal ma abu te mooy delluwaay ba nasaluhu danañ ko ñaan an yoo xanaa mu dëppale ñu wa ahibatana ak suñuy soppee limaa la nga xam ne limaa ci la nga xam ne yurdihi dana ko gërëm na walif ñu waaye saamila te mu ñuy jëfloo fii maa la nga xam ne tardaahu dana ko gërëm min naa ci ñun wala xawla amul benn pexey buy taxa moy wala quwata amul benn pexey buy taxa topp illa billahi ndare lu suñu borom bi subhanahu wa taala namm al aliyi may aji kawe al azim may aji tedd wa salla yal na xiiwal allahu yàlla ala sayidina ci suñu sang muhammadin muhammad wa ala alihi ak ci ay ñoñam wa sahbihi ak i wa sallama te dolli leen a tasliman dolli wóolu xasbuna doy nañu allahu yàlla wa ni'mate baax na alwakilu yàlla mi ñu euh, wakilu ci ay mbir euh, mu ne euh, kon li nga xam ne moom la wax foofu mu ne ki nga xam ne moom lañ laajoon ne ko kan moo la yar mu wax ne da doon xool ci ñi nga xam ne ñoo réer di moytandiku seen réer googee ngir tàbbi ca waaye ne na ginnaaw bi nga xamee ne def na loolu rek lépp ba pare daa jël biram yépp delloo ko ci yàlla waaye daa jël mbiram yépp euh, xam ne suñu borom subhanahu wa taala mooy jubal mooy gindee su ko defee lépp mu wékku ko ci suñu borom ba pare nag di ko ñaan mu dëppale ko ak li nga xam ne moom la bëgg waaye li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala gërëm euh, muy ñaan suñu borom mu dëppale ko ak loola daa di wax ne nag euh, li nga xam ne moom lañ ci am akas niiw ci ay teggiin wala lépp loo xam ne moo aju ci jëf ju baax defuñu ko ngir ne suñu kàttan lañ ko defee wala suñuy pexey waaye lépp ci euh, dogalub yàlla ak nammeelub yàlla euh, ci la amee mu daal di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sëlmal ci moom wax ne euh, suñu borom subhanahu wa doy nañu te ci moom rek lañuy ñuy kon foofu la sara boobu yem nga xam ne ba téere bi des na ay ay bayit waaye li ci des euh, daanaka mooy li nga xam ne mooy euh, tëj téere bi incha allah bu ñu ñëwaatee ñu bind bu mujj ñu jàllale ko incha allah di wax ne in uridu illa al islaaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey